billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim wa inniya uizuha bika wa zuriyata min asheytaani rajim rabbi auzu bika min hamajati shayatini auzu bika rabbi an yahduruni sadit lisaani nawri janaani safi amaani wasid baraay waaw mbokki julli di mbokki taalibe yi ñuy jàkkaarloog télé bi ci biir réew mi ak li ko wër ñoo gi nuyu kull koo xamante nii rek yaa ngi dégg sunu kaddu waaye di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Muntaxal Bachir di ñaan suñu borom defal ko kéemtaanu dund waaye dëbb ko kàttan ak wér barki Cheikhul Xadim waaye noonu tamit sëñ Modou musafaa moom sëñ Modou Mbenda yàlla na ko suñu borom buur bi defal waaye nag fayal nu suñu jàmbaar ji sëñ Cheikh Fall jëmb yàlla nu seeni ndigal ñor te yomb na te fu ci sooboo rek am ci ndam barki Cheikhul Xadim ah, mu mel ni nag dañoo aadoo <coughs> bu nu tàmbalee liggéey bi jox suñu bàyyi Jamil mu ubbi kàddu yi daal di léemu jotaay bi ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin bay jamil bisimilah bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam hawnaka ya muhin ubika nastahin لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان من يفعل ما يشاء فيما يشاء وله الإنساء bokk na jàkkaarloo ci Touba TV ci réew mi ak li génn réew mi dóor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu nuyu bi nga xam ni moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. xam ne moo di nuyoo moo nuyoo bi nga xam ne képp ku di wax laa ilaha illallah sayyidina Muhammadu sallallahu kenn du la ko nuyoo. salaam. kon ñu wax laa ilaha illallah ñoo moom nuyoo boobu. Mhm. muy suñu nuyoo fii ci àdduna doon suñu nuyoo ba na bu nekk al aljanna. Mhm. kon nii nañ ko ñëpp képp koo xam ñaa ngi bàyyi xel émission bi di taata Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. ñu ngi nuyu mm-hmm. di santaat Serigne Touba bu baax a baax mm-hmm. doo lay santaat Cheikh Ibrahima Fall baa muri diin di ñaanal ñëpp nag tawfeex suñu gars yi nga xam tam ñuy saar sëñ Mbacke Ndiaye mi nga xam ni tey ci wàllu waxtaan defe naa moo yore barab kii boobu sëñ Mbacke yàlla waajuram di mhm. sëñ Ibrahima Fall Ndiaye moom yàlla dogal na jot naa ko xam moom waaw ku ku ku ku ku doy waar ku mhm. bëgg Cheikh Ibrahima Fall li gën a gàtt mhm. daana ñëw caare fee amoon na kër goo xam ne di ko ko joxoon daanaka fa laa ko xamee ba sëñ Tafsir Ndiaye di ku ñu ràññ ci caare yi yimbal ba mu wàccee liggéey bi si saarax ba bokk yendu muy ku dëggu ñu mhm. ñaan yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp nag kon sëñ Mbàkke ñu lay siyaar baax baax mhm, eh, mu sëñ Mbàkke mu sëñ Mourou Aminta ci di eh, sëñ Moustapha Diop Moustapha Diop di leen mhm. nuyu baax moom ñu jànkatu xasiira di lay siyaar yow tam nag di siyaar tam sa eh, Cheikh Cheikh Ibrahima Diop Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Diop Kayar kon Moustapha Diop Kayar di tak ci Serigne Cheikh Ibrahima Diop Kayar kon moo teew tey ci wàllu njàng wala si wàllu xasida yi mhm. di nuyu borom café gi nag ndeysaan <laughs> <laughs> sëñ Adama Niang sëñ Adama Niang nañ siyaar baax a baax ndeysaan ndeysaan di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp rek mhm. di yàlla na ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim mhm. ba ci alhamdulilahi na lépp yëman ci dara Cheikh Ibrahima ak ngeen jëf ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñaan suñu borom buur bi lépp yëwan waaye di siyaar bu baax nag Alaaji Mbàkke yu Fay jëriñu Ndakaaru ak li ko wër Euh, di ñaan li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba euh, suñ borom defal ko ci tew feex barki mm-hmm. Cheikhul Khadim ak mm-hmm. ñi mu ànd ak ñëpp nag mm-hmm. waaye ñim ñu booleeg nag ci liggéey bi ci ëtt bi Baye Cheikh Awa Balla Samb waaye sëñ Jibril Ndaw directeur programme sëñ Mbacke Mbodj chef de production ak soxna Ndeye Ndiaye mi nga xam ne mooy yaay émission bi ndeysaan sëñ Mañaan ñu nekk ci régie waaye ba tey nag euh, ndeysaan cadreur de tous les temps <laughs> ndeysaan sëñ <laughs> Baseer ndeysaan waaye sëñ aatu man eh, ak tamit soxna Khadija ndeysaan ak képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog ñun di ñaan suñu borom defal lu tawfeex biir ak biti eh, sëñ Adama eh, looy nuyoo mbokki taalibe yi. sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ah, gë di sant sañ Touba mhm. di jaajëfal maam Cheikh Imam Fall mi nga xamante ne moo waral jotaay bii ni mhm. émission traité ses œuvres di nuyu mhm. di la nuyu yow mi présenté émission bi sëñ Bassirou Cissé ah, di nuyu aussi Baye Jami ah, ci xam-xam bu rafet bi di daal aussi suñu ñaari gan yi nga xam tey moom lañ am ci palaato bi muy sëriñ Moustapha Diop Gayaar ak sëriñ Mbacke Ndiaye mhm. ñu ngi leen bu baax a baax mhm. di leen jël delloo kàddu gi rek ba ci kanam tuuti eh, macha allah di siyaar bu baax eh, directeur port autonome de Dakar eh, ndax yàlla dogal na fa la ñuy xitma ak mboolem directeur sectoriel yëpp di ñaan poor suñu borom def fa jàmm mhm. waaye def ko ci réew mi yëpp nag ah bu ko defee sëñ Moustapha Diop Kayar nga xam ne yàlla dogal na muy raq ci Cheikh Ibra Diop nga xam ne yàlla dafa dogal mu waroon a ñëw ci jotaay bi waaye yéenam ak xolam ak léppam fi waaye nag mu am ngànt ñuy ñaan suñ borom oyofal ko lool barki Seexul Xadim waaye sëñ Moussa ñu la koy ma masaw euh, ndeysaan sëñ Mbàkke ni nga ko waxee léegi sëñ Mbàkke Njaay euh, Baye Jamil war ñoo taxaw ci waxtaan wi di jàmbaar yi euh, Serigne Modou Aminta du Fallou Fall nag mu digal soxna moom yi ñoo lay siyaar bu baax ndeysaan moom Cheikh Ablaye Camara sëñ Mbàkke luy nuyoo mbokk taalibe bi auzu بسم الله الرحمن الرحيم وكن مهيسا لنا من شر شي حسد وشر فمن وشر حين الله وشر شهر وشر الخلق إنسهم ومحجنهم وسواتي سمي الله آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال بارك أمم. أمم. الشيخ إبراهيم فال بارك أمم. الشيخ مولو فال فال salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu. mbokki jullit yi. Mm-hmm. mbokki taalibe yi. Mm-hmm. jabootug lislaam mm-hmm. ci njiitul cheikh Mouhamadul Mountakha. yàlla na fi yàgg te wér. ngi leen di nuyu. nu ngi leen di ziyaare. nu ngi leen di bal àq. nu ngi leen di balu àq. di sëriñ. Hamdi Moustapha Fall moom sëriñ Modou Mbenda mhm. yàlla na fi yàgg loolu téwéer amiin ngi ñaanal jëwrin mhm. joj Cheikh Ibra Fall mhm. ji fekk Cheikh Ibra bu yàggul muy sëriñ Cheikh jëmm yàlla na doole am ngërëmul Cheikh Ibra Fall amiin nu ngi koy sunu sang ba sëñ Mourou Aminta yàlla na am ngërëmul Cheikh Ibra ngi nuyu sunu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ Fallou moom sëñ Mourou Aminta di ñaan mu yàgg fi loolu te mm-hmm. Mm-hmm. nu ngi koy ñaanal Cheikh Moussa Fall. Mbar jëwrinam ji. Mm-hmm. ñaan mu yàgg fi loolu te di ñaanal. mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak njabootu lislaam bi. nu ngi nuyu sunu bàyyi Jamil Diagne. mi nga xam ni. ban ko xamee ak tey. ak ban ko xamagul. liggéeyal sëriñ bi rek ci la nekk. alhamdulilah fu nu mas a dégg ab tànkam wala lu dog ko fa. liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra rek. c'est ça. ñu koy nii di ñaanal. ànd bi ak taxawaay bi yàgg bu baax a baax. amiin amiin barke Alxadim amiin amiin. Cheikh Amadou Bassir ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay di la jërëjëfal yow itam. Mm-hmm. di ñaan sëriñ bi gën laa dooleel bu baax. amiin barke Alxadim noonu la ñuy nuyoo sunu rakk. Mm-hmm. sëñ Moussa Diop Kayar. Mm-hmm. di rakk ci Cheikh Ibra Diop Kayar. ndeysaan te Cheikh Ibra Diop Kayar di lépp ci man. ndeysaan sama loxo nday joor di lépp ci man. plateau bi bu ko yàlla dogalee. da koo jaarale ci Baye Jamil jaarale ko ci moom. Mm-hmm. naka jekkit bu may ñëw Touba TV. Mm-hmm. damay xëy rek mu ne ma bis sàngam demal ca télé ba. moom yàlla dogal na moom loolu loolu da ci ab yéene ci man ma. yàlla xam na ni. Mm-hmm. waxtu bu may ñëw danaan ma demal ci tele bi. waaye nu ngi leen di jot li néew Serigne Fallou moom Serigne Mourad Binta. ndeysaan donc yàlla yëg na jataay bi. Mhm. wax nañ ko ko ñaanal lan. ndeysaan ak Cheikh Moussa jëriñ leen bi. ndeysaan mhm. Serigne Adama. ñang mhm. nu ngi lay nuyu nu ngi lay ndokkeel. ndeysaan nu ngi nuyu ni Serigne Touba ci Ndakaaru. muy Serigne Mbacke yu fay. di ñaan ci màggu yàlla ak baxu Cheikh Arbal. lim bëgg a liggéey Serigne Touba sotti. ndeysaan xam naa suñ bés dañuy wàcc suñu kaddu. ndeysaan ba ngeen joxaat ñu ndigal incha allah. nuyoo bi de am na solo lool. macha allah euh, mu mel ni nag euh, wax dëgg yàlla Euh, comme niñ koy ado di waxee euh, sëñ Moustapha Diop euh, xam naa da ngay yëkkati dara rek jotaay bi xaw a am nu def tuuti ñu soow a dugg ci liggéey bi sëñ Moustapha looy nuyoo gaa yi bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها a الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما حمدا لمن يحفظ كل ذي سفر من كل ما يسوقه من الدرر حمدا لمن فزق كل ذي سفر من كل ما يزوءه من الدرر ثم صلاة على من قد أمر بأن سافر لنقدي الوتر وبعد فالله كريما هتدي بجاي سيد الورى محمد وجاي سادات يا سبت رجال سوي العلوم والفتوح والكمال فقلت راجيا من الله خبر المصطفى المكرم نعم. والسيد يوسف المعزم يا ربنا بالمصطفى المكرم وسيدي يوسف المعزم وبإمامنا خياد ذي الغدا هن عالم العالم سايا المرتدى وجاي سيدنا بالخبازم وسيدي جزول خوز نازيم وسيدي ابي العزيز ذي الهلاب من كسوى منه تاج بالملاب وسيدي مولاي عبد الله وسيدي زواني الألواي كل خليلي وحبيب الناصر ادمن علينا نافسا ونازر حتى يرادا عاجلا لأهلي إيه هاي سالما وخادما بالفضل ليس مبدلا ولا مغيرا لا فاتنا مدون أو مكدرا ويجدا عالما كذلك ما الأيباء هنا أنادك أجب لنا يا زايب الجلال بالمصطفى وصفاتي رجال وسليا وسلما يا الله هل الذي قد تلامدا سيدنا محمد والآل وسابي وكل من يوالي ما شاء الله نيو بوك تالي <laughs> بي tey ziar mbooleem waa jataay bi mhm. di nuyu mbooleem ku ñuy bàyyi xel ci waxtu wi mhm. jiital nuyu beeg ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mhm. Mbàkke Bàlla suñu borom yàggal ko fi baax te ba lépp lu mu bëgg liggéeyal maamam mu def ko na kawe njortam di ziareet xalifa Cheikh Ibrahima Fall Lamp Cheikh suñu borom yàggal ko fi oyofal yéen bi ci kawam ñaanal baax sëriñ Cheikh jëm faar suñu boroom yokk ay leeram ñu ngi siyaare mboolem waa Kayaar nga xamante ni fa la ñu jóge ci jiite sëriñ Xaadim Njaay Kayaar nga xamante ni suñu lépp la ci teg suñu mag Cheikh Ibrahima Diop nga xamante ni moo waroon toog jotaay bi tey waaye ak mbaaxam ak yéene ñëpp moo waral mu yebal ñu ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawfeex bu baax a baax a baax siyaare baax suñu baay Jamil ñi nga xamante ni mooy kilifa jotaay bi ko ñaanal suñu borom mhm. may ko ngërëm cheikh ibrahima fall amin amin amin sakku di ziaré serigne mhm. yow bu baaxa baax mhm. ci kaddu yam solo yi ziaré serigne mbacke ndjay mi nga xamanteni momé suñu mag la di suñu jëriñ ñu xamé ko suñu mag cheikh ibrahima diop ñu ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq bu baaxa baaxa baax ziaré baax euh, waaw serigne adama mu baax mi momé ñu ko ziaré baax ko di ziar ñëpp jéggalu baax Serigne Massaya di sama xarit moom nga koy ziare baax mhm. jéggalu baax ngi def ma sha allah eh, xamna naa de sëñ eh, Ibra Diop jambar la mëna jang lool waye yow da melni ma sha macha allah eh, manam sam jang yow da nga am mag moy roy wala manam air la bo xam da la dikkel rek wala naka la démé ba tax nga mën ko jekkoon yi waaw jërëjëf sëñ Basirou mhm. nag daanaka maanaam ñu ngi rootee ci eeru Serigne Moustapha Ñing ndeysaan moom moo wax dëgg yàlla mooy suñu idole di suñu jëwriñ ndeysaan waaw moom it nekk jëmm ju baax lool wax dëgg yàlla di ko ñuy jàppale it mm-hmm, mm-hmm. daanaka lu ñu xewle mu dagg yitteem yëpp ñoo teew ndeysaan waaw moom lañ ci topp mm-hmm. incha allah maanaam sam njàng benn bennal rek wala da ngay def njàng aw wala naka la demee waaw man nag euh, jàngum benn bennal lan ma gën a xamee waaye nag euh, waaye nag léeg waaye nag léeg-léeg ma dugg ci yeneen air yi jàngum aw ak yooyu waaw bu dee jàngum aw moom dinaa ci faral di ku ñuy wax ku ñuy wax sëriñ Xaarim Kebe ak sëriñ Cheikhouna Mbaj waaw ñu ngi leen di faral di roy ci njàngum aw mi bokk nga ci ñi génnee ay ay lu mel ni ay kaset ak yeneen yi ci aju wala tàmbale kooku waaw génne nañu kaset ndeysaan génne nañu kaset mhm. waaye ci sëriñ bi ndeysaan waaw euh, bokk nga tamit ci ñi nga xam ne dañoo am ay carte artiste ak yi méngoog jamono waaw yooyu nag moom yàlla dogal na jotaguñu ci ah ndeysaan waaw yooyu moom jotaguñu ci mhm. ah kon de loolu xanaa ñu def ci yitte rek ah, ah, Baye Jamil sa waay de xam naa ne moom macha allah wax naa mm-hmm. naa jàng lool mm-hmm. ah waaye moom it mën naa jàng ah waaw mën naa jàng de wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man ma ci mm-hmm. daaj bi muy jàng daaj bi neex na man xasida sax daa ko xamul li gën a gàtt waaw moom de xam naa ne moom moom yàllaay buur li gën a gàtt ndeysaan kon yàlla na yàlla defal toofe baax a baax te nu góorgóor wax ni moom eh, damay faral di wax sëñ Tuubaa def ci sama dëj gi nag laa wax bu doonoon ku ñuy aw ci liggéey day mel ni ñu jàng xasiir yi ñoo ko ñoo ko aw ndeysaan ndax gannaaw ne antal kërim àndal xadimu daanu di fi gasana yi mm-hmm. dañ ne rasulullah yaay ki tedd mm-hmm. man maay sa liggéeykat mm-hmm. diiru jamono kon nag mel na képp koo xamante ni kii yaa ngi jàng xasiir yi kii bind kii jàng kon moo moo moo moo moo moo moo moo ko moo ko aw bu doon ku ñuy aw dëgg kon nag ku ci nekk daal yaa ngi ci liggéey boo xamante ni bii dara féetu ko kaw xasiir yi mu féet lépp kaw yiw yëpp ndax ic xel xilaa mi yaa sa kóor maqaama jublata xuyóori daa ima mhm, mhm. sëñ Tuubaa nee na yàlla defal sama xasiida yi mhm. sama sama xalima gi mu tax taxawaay mboolem yiw yi mboolem yiw yëpp nag rek li yàlla digli ci ñu baax ci na ci biir nekk daal xamal li nga am waaw bu ko sëñ Tuubaa di murit a ko ko daal boolu ko ko dara yi àdduna jaral waaw li mu góorgóor rek ngir jëm eh, allah eh, xam naa eh, ñuy siyaar bu baax nag ki nga xamante ni Baye Jamil tey moom lañ dara jaalee émission bi. Hmm. ndax yàlla dafa dogal ñu am sunu jénn jëwriñ joo xam ne docteur Mouhamed Bachir Ba lañ koy wax. yàlla dogal mu dëkk Géejawaay yor fa clinique boo xam ne Mouhamadul Bachir Mbacke lañ ko tuddee. Hmm. mu doon nag ku yaatal ku yaatu. te wax dëgg yàlla ñun dañoo baaxoo woon lu ci ëpp rek ci wàllu paj balaa ñu ko yëg dëgg rek ñu jugee eh, maanaam ci banlieue bi dem ndakaaru moom nag mu doon doomi banlieue yi ba noppi ñëw samp ko fa ba noppi di murit di ku baax di koo xam ne émission bi da koo ñor lool fu mu toll mu di ko seetaan ma jàpp na nag tey ñu dara jaalee ko ko hmm. maanaam waaw góor day yokk njàmbaar kon Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na la suñu borom taxaw defal la feex booleel kook sa njaboot yëpp ak waa clinique ba yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm barki Cheikhul Khadim hmm. ah mu mel ni nag euh, Serigne Mbacke Ndiaye Eh, ñu war a waxtaan ci Cheikh Ibra ak waa këram tey ana loo ñu indil ci seex Ibrahima Fall baabu ñu jërëjëf sëñ Basiru. gën a santaat Cheikh Ibrahima bu baax rek. Mhm. mën na ko de. ci dimbali gi mu nu dimbali. Mhm. taw fee xel nu. Mhm. nuy wax jëm ci moom. ndeysaan. te moom fa mu ne. ak ka mu doon ku mu dimbalewul toq lu néew mënoo xam ci moom dara ba ci wax dara ndeysaan kon nu ngi koy gën a sant bu baax tey sàkku ca baaxam nga ak yërmandeem jë mu gën ñoo dimbali taqale nu jëmmam lu ko neex rek yàlla na lu neex amin nun daal bu nu am sax lu nuy bëgg biir bëggam gi yàlla nañ ci seey ci barke Cheikh Balla loolu daal loolu daal la ñuy ñaan Cheikh Ibra di waxtaan ci moom boo koy def yaa ngi waxtaan ci secret yi suñu borom yi hmm. waaw ci nan yaa ngi waxtaan hmm. ci kaweek yonent bi sallallahu yaa ngi waxtaan ci beruk sëñ gi yaa ngi waxtaan ci gi Cheikh yilif baabul muridin doon gi mu doon kilifa ak yoonu murid ce booy waxtaani Cheikh Ibra tënk nga lislaam ndeysaan ci gaa yi xam dara mhm. waxuma ko xamul de mhm. waaye ku xam mhm. booy waxtaani Cheikh Ibra tënk nga lislaam ci gàttal rek ngir tënk ko ci ñaari pàcc yu gàtt mooy kuy kilifaam Cheikh Ibra kuy kilifaam xaadimu rasuul képp am Sharif, sëtub yonent bi la. sallallahu alaihi wasallam sallam mu ñew fekk serigne bi ndiarim dal ne ko man la diw sëtub rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam. sallallahu alaihi wasallam sallam. ne ko no demee ak mu ne ko diw moy sama mam diw moy sama mam lim ap lim bu bari. ba yegg si ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam ga dogul. sëñ bi sëñ ne ko yow serif haqqan nga. Mhm. sëñ tuwa ko ko def yow sërif nga. Mhm. ko ak serifam waaw. man murit bu mel ni man ak ku mel ni man keroog laa koy validé boo ko sëñ Tuubaa tuddee tuddee dëgg ndax kum ci dugal nga bokk sëñ bi daal ne gees sëñ Mbàkke Juuf ne ko Mbàkke Juuf dégg ko mu ne ko dégg naa ko de mu ne ko wax na ki ma doon ba sës ci Rasuul laay ko waaw wax ma wax ko man ki ma doon oh sëñ Mbàkke Juuf ne bërit mhm. jox xar bi naar bi mhm. ne ko yow sët nga mhm. waaye dangaa tuddi maam ba yegsi déglul nag ñun ñu wax la ki mu doon moom ni ko kii dara doxul diggante ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun ñooy sët waaye moom bu doon doom doom lay doon ke ni ko tàllal sa baaraam mu tàllal baaraamam suñ bàkki juuf ne ko neel rasulullahi mu ne ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñ bàkki juuf ne ko joxoñal kii mu joxoñ sëñ bi mu ne ko neel xaadimu rasul mu ne ko xaadimu rasulullahi mu ne ko kon kii xanaa moo sës mu ne ko waaw mu ne ko kenn doxul digganteem ak moom mu ne ko waaw mu ne ko ñun ñooy sët mu ni tekk mu ne ko xam nga lu tax mu ne ko déedéet mu ne ko ñun ñooy muridullahi laa ilaaha illallaah rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam xaadimu rasuulullaahi muridullaahi képp murid mooy sët mhm. moo sës mhm. Cheikh Ibrahima nag mooy baabul muridiin buntub yoonu murid sës bu sët bu njëkk bi laa ilaaha illallaah <laughs> kon kooku boo koy waxtaanee xamal mhm. sëriñam soo ko dugg ci ki ngay waxtaanee kumu mooy baabul muridiin waaw doy sëkk ci waxtaane Cheikh Ibrahima Fall bax ga xewé ga dara jaja bi muy wut ci sëriñ bi mom mhm. bi muy wut ci cheikh amadou bamba mhm. li gaa yépp di wërté ko am toog mom mhm. mom la am ba nopi di wëri sëriñ bi bu balla mam jaay kenn du cheikh ibra déedéet cheikh ibra bi muy wër sëñ touba sëñ moussa ka mo no wax wër ga sëñ basirou ko dégg mu wër dara bu yeggee ci yalla taxaw waw sëñ Moussa Ka nee na Cheikh Ibra na nay xabaarum jébbalam boo xam ne yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe moom gisagul Ahmadou Bamba te waxante nag yàlla ki muy wëri mhm. tàmbalee wër kon moom am na yàlla soo ko gis sëñ Bamba lu ko tax a jóg mhm. li tax a jóg Cheikh Ibra moo ma ta li jëndi mhm. mooy lii mu indi nga xam ni mës ta xew jamono bàyyi bonki lislaam te jiite lislaam loolu mosul bàyyi ponki lislaam jiite lislaam ay ay waxaat ko waay. loolu mosul am jamono déedéet. <laughs> ponki lislaam yi nga bàyyi ko. teg ko ne. waaw ba noppi jiite lislaam. loolu mosul am la la kon li ko tax a jóg mooy indi lu peq luñ xam ni kii sëriñam moo amul morom ba mu sàkk ku mel nii. sëriñ bi kenn jotiwu ko Cheikh Ibrahima ngay yem taxaw. sëñ Touba. kenn jotiwu ko. Cheikh Ibrahima ngay yem taxaw. Mhm. mboolem ibaadaat yu moo ci man jaamu yàlla. sëñ Tuubaa ci féete kaw ñëpp. loolu la yàlla dogal. alxuraan dafa wax ni malakani xuraan tamliikal ya doom yàlla may na ma alxuraan ak xeeti secret yi ca biir. malakani xuraan wal uluma may na ma alxuraan ak xam-xam yi. yoo xam ne sëñ Tuubaa moom fa mu ne kenn jotiwu ko kon. waaye ki mu samp muy Cheikh Ibrahima la kenn mënta jàll. boo yemee ci moom taxaw. day taxaw de. kon Cheikh Ibrahima moom li bëggoon mooy wane ne sëñ Tubaa kenn nekkul fa mu ne yem leen ci man jariñ mm-hmm. moo tax sëriñ bi samp Cheikh Ibrahima mm-hmm. ci sampin wu doy waar mm-hmm. ndax koo xam ne am nga yàlla soog a wëri sëb sëriñ loolu tax a jóg mooy jariñu tey jariñe jariñu tey jariñe jariñu tey jariñe te loo dégg ci àdduna nit di ko niru wala nit du ni mel wala wala beneen melokaan woo dégg ci diggante nit ak ginne ak malaika buñ amé yalla dañuy def ni cheikh ibrahim fall roh lu rek jamu hmm cheikh ibra hmm nangum njam te dis gor da ko dal digité du wor hmm xon seigne touba ne ko ñaan na la sa cang gi fum yegg sama jam gi na fa yegg lay waye yokal sama ngor lu njam gi niru niru ak cang bu mako massa damo ngir niru bo oh la ilaha illallah yokal sama ngor rek mhm. am na bis boo xam ne addiye la dajale ju baree bari jox sëñ mbortaala faal doomam ne ko joxal ma sëñ bàmba moor mu ne ko faal mu ne ko waxal sëñ bàmba na yokk saa ngor oh gii day bëgg nirug càng te bëggumaa feeñ ci càng mm-hmm. waxal sëñ bàmba na yokk saa ma doon as jaam rek addiye benn bis boo xam ne loolu la ko indee sëñ tubaa mi kilifaam daa féete kaw ñëpp moo tax mu def Seex mu jommale cey cey waaw moo tax mu def Cheikh Ibrahima mu jommale sëñ Tuubaa daa féete kaw ñëpp mm-hmm. daa bis ci njaareem sëriñ bi defar attaaya bi mu tegee baraada bi ni ci mbind ne ci mbind ne ci mbind ba baraada bi tàng jër mm-hmm. sëriñ bi ni bëri rek téye ko loxoom dara doxul digganteem ak weñ ñi su ma jox ba xam ne maa ngi toog ci wetam ne bi ko sëriñ bi téye rek mu yërëm ko ci ci lim ko téyee foog ni tàngaayu baraada bi dina wàll loxo bi. nee mhm. na mhm. sëriñ bi daa daa demee geesu. ne mhm. ma amul joppaxa ma ne Mbàkke mu ne ma xanaa dangaa foog ni dinañu def melo. ma ne ko waaw Mbàkke man de saa xel tàbbi na ci loolu. mu na ko déedéet baraada bi daa am lu lay misaal rek ci sama tukki bi. joo. sëriñu Cheikh Ibra laay waxtaanee. bañ xam ne moom amul morom ñu soog a indi Cheikh Ibra Fall. ne ko sama tukki bi. Da am bis bo xamni lila barade bi bëgg wax mu xaraas gi lim la bëgg wax sama tukki bi da am bis bo xamni dama julli bëssal man suba tuba bi fekk ma fa ca ma yomba te bokku na ci lima ma sun borom buñ bu leen ma sa wax kañ lay ñibbi bu leen ma sa wax luma leen def buma leen ma sa wax fu ngeen ma jëme ak lu ngeen bëgg neena yoy mom bokku na ci lima ñaan yalla bam nangul ma duma ko laaj ab tuba neena ñu fekk ma fa rek bari lool te daawuñ ñëwé non ma xamni amna luñ nar mhm. neena ma rek ñu ne ma marabu jogal mhm. neena ma jog nee na ñu jiital ma ñi ne ci ndeyjoor ñi ne ci càmmoñ ñi ne ci ginnaaw nee na ñuy dox ba ci yàgg ñu ubbi seen jataay ba mu mel dañoo yaatal géew bi nee na ma ne ci digg bi rek ma seen ko bari kàttan dox dox dox dox juróom benn la fekk ñu taxaw ñu tiim kawdir gu yaatu nee na bi ñu tiimee kawdir gi ma gis juróom benn yi ak kat demoon yëkkati ko muy juróom ñaar nee ma xam ne di kat diis na nee ma koy jub rek kenn ku am kàttan ci ñoom ne ma cas ne ma ca war ndekete togg leen togg ma rek moo leen tax a jóg oh. tukkiim bi laay wax sëñ Tuubaa nee na ñu dugal ma foofee ci cin la di ko xam ba tisbaar jot nee na ma ne suñ borom man duma leen laaj duma leen wax ni lii laa bëgg te waxtu jot na damaa war a julli sa waxtu wi mm-hmm. te bëgguma nag ñoom ñu yëg ni man maa maa koy sàkk ci ñoom. Mhm. man daal du ma faat waxtu. Mhm. nee na suñu borom moom wax yu ci biir cin li ne ma xaaral ma def ci ñoom xelum ñu xool la seeti la ndax ñor nga am déet. Mhm. sëñ Tuubaa tukkeem boobu. nee na tubaab yi daal di joxe daal di ne waaw nañ ko xool xanaa nag saye. bu bi ñu ñëw bëri. ba yëkkati cin kubéeru cin li ñu ko yëkkati woon nee na bi muy tolloog saakaar la bëris ba ma mën a taxaw julli ñaari waxtu ci biir julli julli tisbaar ci biir cin li laa njëkk a def soo ko wax ak ñoom coo googu julli kenn julleegu ko déedéet li ma bëgg a wax mooy kooku julli fu mhm. julli ndar julli ndakaaru julli ci géej gi julli ci kaso bii julli ci cin loolu may wax mhm. mooy sëriñu Cheikh bi da ko wax toogal ma julli ji jullee nu ne jullee nanu ne waaye danaa wax Cheikh Ibra Fall toogal ma julli ji waaw laa ilaaha illallaah baatu toogal ma julli ji boobu laa bëgg xam laa bëgg wax ñu ni laa bëgg ñu xam ni ki ko daan wax Cheikh Ibrahima Fall moom julli na fu ne fu kenn dul julli waaw bi mu sëlmalee ci géej gi kenn taxawal mhm. bi mu sëlmalee ci kasu bii ci ndakaaru kenn taxawal mhm. ci nam loolee kenn taxawal mhm. fuur boobee dana yomb kenn taxawal ñaari guddi ndakaaru kooka moo daan wax Cheikh Ibrahima toogal ma julli ji bilaay fu mu ko teg Cheikh da fu sëñ fu Cheikh Ibrahima teg sëriñ bi ne ko toogal ma julli ji Da am yalla so gis sëñ tubaa da wax ni mas na xabaaram ba wax ni yalla mi ko mom mo ne ko moko ni bamba moo la moom kon ko ka kawe na ko war so ga am seigne tubaa mhm. mhm. Cheikh ibrahim Fall modir jalulain jannati ba gis na alulain la ilaha illallah Cheikh ibrahim bamu mu serigne bamba dafa nërmeelu oh jebal ko bopam ni ko yow la wolu ay mom la wolu cheikhul khadim nana sunu bàyyi cheikh ibrafa la gore mhm. lum bax le man la ko jox saadix la mo bari gem mhm. yow mi murid bu beug gem ta te fexeel bëggam si xibra faal teray ko te bañ di jiixi jaaxala ni bamba si xibra faal si xibra faal bamba kuulu fal ko bamba ni ca rafal lom jara Cheikh Ibra rafal lom Ahmadou Fall ser njay biram jëboo ma ca ngaay bay naaru digin Fall ku sopp maami Cheikh Modou Fall Fall jaaraama Cheikh Ibra rafal babul muridin war na képp murid ku mu mën a doon waaw ma Cheikh ibrahim Fall baabul muridin warna murid ak ku mu mën a doon waaye dafa am lumay bañ ñu rom bay Jamil jeurin dafa wax ne Serigne Momar tala Fall Cheikh ibrahim mës na koo jox adiya ne ko demal ci serigne Touba ne ko mu ñaanal ma mu yok sama ngor gi ba sama xel sax du dem ci doon sànq ci lool ana ana lo ci meuna a développé soko jall wa mom mom xam nga le daf ko ne man fa sa jang gi egg. wa man na fa sa njaam gi egg. oh. nga xam ne léegi xam ne sëñ moom uh-huh. Uh-huh. xéewal yi jógee sëñ Tuubaa dañoo ci moom bu yàggee uh-huh. mën naa dem ba neex ba mu fàtte cang ga ndeysaan ndeysaan ndeysaan bëgg bañ a goree di nag xew ndax gannaaw ne àdduna boo ko sëñ euh, euh, damaa jëlale euh, ak doom waaw waaye mbaar mën a mën a keral boo ko yaakaar ci àdduna te yoo xam ne ni ko benn karo ci bopp rek bëgguma nga fayal ko fii oh. xam nga ko wax loolu mhm. ak li mujj am mhm. ñu defee sax dafa firi wax ja mhm. fekk la ma ne ba tey ma nga ca ko suñu ta ma nga ca waaye nag kon njaam gi dafa dem rek ba nar a neex ba ba ba nar jéggi dayoo eh. mu bëgg a jàngal ñi te kooku sax pour jëmam waaye njabootam oh. day jàngal waaw njabootam day jàngal bi mu léegi mu neex mukk ba ngeen ba ngeen ba ngeen def leen ay kii sëñ Tuubaa ma sëñ Tuubaa rek waaw loolu rek sax ngi jëlee kii bisimilah Cheikh Moussa jërëjëf mhm. xasida yi mhm. sëriñ bi daa waxoon ni karaamatu xattu yodd yi mhm. sama mbindum loxo mooy sama karaama sama karaama te mbindum loxoom mi wax na moom sëñ Tuubaa wax na ni aljana bunt yëpp laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lañ ci bind daal ne waaye jaam bu ca tàbbali lay yëg ni tàbb nga ca mooy dégg gi nga dégg sama xasida yi di jolli ca biir kon xasida yi mooy lépp dañoo ne ci télé te juñ ju baat boo xam ne dañ ko bëgg a leeral jàll bismillah mooy sëriñ bi moo daa wax Cheikh la toogal ñu julli ji. waaw daa mat a leeral. daa mat a leeral. Mhm. daam bis ci weeru koor. Mhm. ci njaareem. Mhm. sëriñ bi xëy wax ni dinaa la wax ku ko wax. wax la ku ko fekkee. ndax sunuy at gàtt na xëy na ci zahir. waaye gis nañ juróom-ñaari mag ñoo xam ne dañ naan Cheikh Ibra Fall nee na. waaw loolu moom am na ki ci mujj mooy maam Baba Ngom Thiès ci biir ëttub kër Cheikh Ibra Fall bi lañ daan toog ci ndigalu suñ mu mhm. ndax noonu suñ mu rawinte lañ bëritu mooy suñ lépp to ci biir ëttub Cheikh Ibra lañ daan toog fekk ko fa moom ak maam Modou mbay ñu naan Cheikh Ibra Fall nee na bis sàngam fii oh. maam Modou Samb maa yaay ca la bokk mhm. daaru mar naan mhm. ca njene la gat ak ñeneen sunu bàyyi Cheikh Ibra ko uuf tudde ko boppam juróom-ñaari mag daal gis na leen yoo xam ne dañ naan Cheikh Ibra neen daam bis ci njaareem sëriñ bi xëy yónnee kër Cheikh Ibra Fall daal ni wax leen Ibra Fall saa kër gi dañ koy yeesal booba sàkkete xew sàkkete xew waaw booba sàkket la ñuy def sàkket kër gi dañ koo sàkketal bu subaa nan ñëw yeesalal ma saa kër gi loolu weeru koor la tombeel daal ni sama waa kër ak waa kër Ibra Fall nan xëy sàkket sama kër cheikh ibra fall xey yebal seigne massamba ndjay waqi mhm. yebal yebal yebal ay mag mhm. mbolo ñew indi gi tax ak lañuy rabbe mhm. wa keur seigne touba xey wéru koor la limay wax bitis bar joté serigne bi genn di julli ji mbolo ma na ca saket ya serigne bi ko wat ci jakké ji mbolo mi ne ci saket yi am ko dab sëriñ bi ne ko waaw yow sa sa waa kër yi dañ dul julli sëriñ bi daawul geesu mu wàññeeku waaw ñëw ba tolloo ak fi ñuy sàkkete daal ni ana ñu jóge sama kër ñu ne ñoo ngi nii mu ne ku leen jiite ñu ne ko sëriñ Modou Diouf jatti moo jiite ñu jóge sa kër mu ne Modou Diouf jatti mu ni Mbàkke ma julli ngeen mu ne ko déedéet Mbàkke dañoo newoon ci ndigal li rek suñ bi ne ko teppi leen teppi leen sàkki dindi leen ko boole leen xer yi ak laa yi ngeen ko takkee ak li ngeen doon rabbe gi tax gi génne taal ci biti na ngeen ko génne ci biti taal ko ndax mattum sawara la te mattum sawara du tàkke sama kër ndeysaan ñi jógee kër sëñ tubaa tàmbalee def loolu mu daal di dox ba ci ab lim mu daal ne ana ñu jógee kër Ibra ñu ne ñoo ngi nii mu ne ku leen jiite ñu ne ko sëñ Masamba Ndiaye wàqi mu ne Masamba Ndiaye wàqi da ngeen a julliwul mu ne déedéet julliwuñ de moo yéen ndax woor a ngeen weeru koor la mhm. sëñ bi ne ndax woor a ngeen mhm. ñu ne ko déedéet mu daal di joxoñ loxoom bu tedd ba mhm. daal ni leelu mu sëñ Moussa Madiaye ne ko lee day mbàkke ab gàtt la mu ne ko bëy la sëñ Tuubaa tudd ko ci lam nañu ni bëy la mu ne ko waaw mu daal ni leelu mu sëñ Masamba yaay ne ko lee de Mbàkke saaku la sëñ bi ne ko cere la def marale leen bay weeg cere ji waa kër Ibra Fall xéwloo ko te dellu ci liggéey bi kaweel naa ko ju léegi woor laa ilaaha illallaah Abdou Xaadir Seck mhm. ca la bokkoon mhm. moo jur Baye Ousmane Seck mi nekkoon kër si ma bu yàggul mhm. Baye moo ñu ko nettali bàyyam ca la bokkoon lu ñuy wax day leer kon sëriñ bi moom ber na Cheikh de ci loolu yi bilaay boo demee ca murit yo waxtaanu murit saadix wa am na bis sëriñ bi tok ak Cheikh Ibra Cheikh Ibra indil ko adiya ñu noddu sëriñ bi ni Ibra Fall mu ne Mbàkke mu ne ko togal nu julli ji Cheikh Ibra dal ni la ilaha illallah sëriñ bi waxu dug ci jakk ji Cheikh Ibra di mbing rek al gi sori lol bi delusi fek Cheikh Ibra neena ya rambay fa sama jay waqi Moussa Niang ñu ni Fall mu ni daw leen ci kër ga lu fa baax ne leen Ibrahima kan na ngeen ko yenu indi oh ñooña daw rek di sëf mhm. bi sëriñ bi julli di toog rek bi mu sa duggee ci ci jataay bi rek mhm. fekk na mag ñooñee yenu luñ baax li ci kër ga te xam ne baax na mhm. baa Ibrahima kan jox na leen ko ñu indil ko Sëriñ tu baax Ibrahima daal ni Mbàkke njëlbeenu ñëw gi ziyaar la woon waaye Mbàkke mujj gi tuub la oh sëñ bi ne ko Ibrahima loo def bay tuub ne ko mbacke dama dégg nga wax ak man loo xam ni musuma dégg yonent bu ko wax ab sahabaam musuma wax musuma dégg wali wu ko wax di sëriñam uhuh. ab taalibeem uhuh. musuma dégg kenn ku baax wax ko kenn ku ko yaakaar uhuh. sëñ bi ne ko ana lu mu doon mu ne ko mooy toogal ba julli ji ce mbàkke bi nga ma ko waxee saab dënn da da da yegg ci tiit ndax bi nga ma ko waxee kaddu gi musuma koo dégg looloo sabab bi nga ma ko waxee ma mel ni ku tiit tudd yàlla daal ne ko mbàkki tudd gi ma tudd yàlla jéggi la jéggi rasulullah loolu laay tuub sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha illallah bi ne ko jéggal nañ la jéggal ko àndal day ndeysaan day sëriñ Abdou Hakim mhm. moom sëriñ Basiiru mhm. moo nettali li ni mhm. sëriñ Basiiru moo ko ni xëy nañ ci njaareem wala boo xëy nañ ci barab ndax barab ba rëcc na ma sëriñ tubaa wax ni Ibra Fall may naa ko alxuraan te sëriñ bi def ni malakani xuraan tam ni kal yadoom mhm. may nañ ma alxuraan ci moom miin yëpp maa ko moom mhm. alxuraan maa ko moom fi yëpp mhm. waxuñu ki yem ci xiila ak xaala nag yow ubal say téere li ñuy wax ump na la sëriñ tubaa la ñuy wax ak dara jaam ki nga xam ne moom bu ubbi wutu xam dara kooku waxuñu ko sëriñ tubaa la ñuy wax ak dara jaam kooku ber nañ ko mën naa dem waaye sëñ tubaa ak dara jaam gars yi yàlla yi ko xam-xam nañ ni moo def nii Cheikh Ibra ndeysaan ene serigne bi xëy ni dama bëgg garab sangam nañ ma daggal banti buñu gor garab gi te garab gi bari dig lol mu ni buñu ko buñu ko gor nañ dagg banti mhm. te defaral ma gayet batti ba man gayet ñu dajal ma ci néeg sëñ tubaa dajal ma ci neeg fekk cheikh dem to mhm. nee kéro man ñi biñ ñëw wër garab gi serigne bi neena bako kenn daane te garab gi da bari dig xamuñu fuñ koy jaar ci yéeg cheikh bi joge tole ya ak say wax fekk len ñu wër garab gi mu ni waaye lu ngeen di def ni ñu ne ko ku baax de moo wax ni nañ gor bànqaasi garab gi te buñ dag garab gi ta garab gi da bari de kenn amul fu ko jaar mhm. mu ne ankay ah, do amna fu ko jaar de yéen ko xamul rek mhm. waye sëñ bamba mo bëgg bant yi ñu ne ko waaw mu ne bisimilah barkab bamba rocc sirmiñ bi mu yoron dagge ci ko ay bant ci yalla ba rof ci yam daal di de ni bi ni sen ndax di yegg garab di di di di maf ñandu garab gi. dënn bi di ànd ak yéere yi di xotteeku deret ji wàcc. la ilaha Cheikh Ibrahima yëg gor garab. wàcc folet car yi. dajale ko ba noppi. tàngaay wi jàpp ko mu ne dal la daanu ci wetu bant yi. mag ñi daw. ñëw ci sëñ bi ne ko ah la nga santaane woon de Ibra Fall la ko def. waaye moom de li mu sotti ci deret bari na. ba tax na moom ca wetu bat dee tëdd. moom de mbàkki boo gaawul yàlla bu mu ci jaaree. sëriñ bi génn. nekk ci alxuraan ba sori lool génn bi mu génnee sëñ Abdou nee na xoolul xoolul Cheikh Ibra Fall bi mu di xoolul bant yi mu defar mhm. sëñ Tuubaa daa wéy ci garab gi mhm. xool fi Cheikh Ibra jaaroon muy deret bi muy dem mhm. xool bi muy wàcc fi mu waat muy deret doon ñaari yoon sëñ bi xool garab gi xool deret di Cheikh Ibra Fall ndax ni Ibra Fall maa tax mu def nii deretam mag ñi ni teg mu ne waaw waaye moom damay naa ko alxuraan sëñ Tuubaa moomu alxuraan wér na mhm. Mhm. moo ko may Cheikh Ibra sëñ Abdou Hakim mi ma ko nett li doomi sëñ Moussa moom sëñ Basiru la mhm. moo nekk Bambey nee na ma sëriñ Abdou Hakim moom sëñ Basiru moo ko nett li ni sëñ Basiru ko ko nett ndeysaan kon loolu wér wér na li tax nit di kër kër yi bëgg a mucc rek la sëñ Tuubaa musal na Cheikh Ibra ak kum loolu daa ma tax xam demal ca waxtaanu murid saadi soxna maam Fatou Sylla xam ngeen ni soxnaa ma woon. Mhm. doomi sëriñ ma ñaaw Sylla. Mhm. soxna maam saa si Mbodj soxnaa ma woon. Mhm. doomi gel war la guddëkkoon siin doomi buur. Cheikh Ibrahima daa xëy ni leen yéen day doom kii doomi soxnaa kii doomi buur la. te doomi buur ak doomi soxna rëy day na ci ñoom. te rëy ku ko faatuwaale dem sa waram waaye kaay leen dem siñ baam mu ñaanal leen ndax du ngeen lakk. nekk daa bëgg feeñal mbir. boole leen ak benn murit dagg mburu jox leen ne leen mburu nag neexu la lekk ci mbedd ku rëy du ko def mhm. tàmbale leen sama kër di lekk jëm kër sëñ Bàmba mhm. ku ko gis xam ne rëy nga dañ ci yéen mhm. mag ñu baax ñi di def noonu yi bindaaw li ñëwee nii sëñ Tuubaa sëñ bi neen fay leen laaj leen Cheikh rek ñu ne ko mu ne ko moom a yebal ak ñaari soxnaam yii soxna maam Faati Sylla ak soxna maam Saasi Mbóoj nee na kii day doomi soxna kii di doomi gelwaar te reuy day na ci doomi soxna ak doomi bour te bëggul ñu dem sawara neena nga ñaanal li ndax duñ dem sawara deglu li seigne touba tontu demal ci waxtaanu murid sadiq téré ba seigne touba mo tontu ci lamiñam wax daal daal wax ndaw la ne ko boo neen ibra fall lama ko waxon xana da ko fatte nee ko won mom ak ku aju ci mom du dem sawara mom ak ku aju ci mom du dem sawara loolu sëñ tubaa ko wax ndeysaan ndeysaan yalla nuko yalla fay kooku nga xamni nak mhm. da xey mhm. wax moom sëñ Tuubaa wax fii ci Daaru Salaam wax wax ju kawe jooju bàyyi mu soo si la moo ko def ne ma kilifa ma ni ma sëñ bi xëy na ci Daaru Salaam wax wax joo xam ne ci Cheikh Ibra Fall bu ko ñépp xamoon taalibe dootul am ñëpp taalibe taalibe Cheikh Ibra Fall la ñuy doon laay bàyyi mu soo ma ko wax mhm. ni ma sëñ bi xëy na ci Daaru Salaam ñu di ko niyu booba sañceegul jógeegul Daaru Salaam ngir jox ko sëñ gaawaan benn mhm. sëñ bi toog ba ci yàgg mu daal ni moom day këru safaan ga mm-hmm. muy sawara mm-hmm. sëñ bi ne moom de fekk na ma fii mm-hmm. daal ni moom day bi mu ñëwee bu doon nit ku ami rongoñ dama naan jooy na ba ay rongoñam tuuru daal ni waaye day bi mu fiy jógee ci li ma yàlla li nga xam ne du ma tas yaakaar bëgg na boobu doon nit mu ngay ree waaw nee na ni teg mu ne moom de daf maa wax ni ma man ahmadu bima ma jamono ak légui mom mhm. de buntam yépp nga ubbé ko waye gisul ko dugg ndax sunum ñëw ñun ndok yalla sëñ tubaa ko wax tanni mhm. ni nak mom day barab bo xamni mhm. la ko yalla sant bima ma ñëwee gën yomb ci mbooloo mi tabbi fa ndax ñun ku ñu bëgg mucc ku ñu liggéeyal mucc ku ñu jox addi mucc moy bi xitmatin aw bi hubbin aw addiyaat yi daan ni waaye mom day mom kërug safaan gi bi mu fiy jógee na bég mo xamni kenn mënu koo misaal ñu ni tekk mu ne daa daa wax ba noppi ma wax ko ne ko xam nga ibrahima fall mhm. mu ne ma daa koy dégg kon sa war a xamul seen la waaw mu ne ma daa koy dégg mhm. ma ne ko may naa la ko ko gàntal su ëllëgee yaag moom oh la ilaha illallah waaw saa si la nee na ma sama sëriñ moo ma ko nettali ta ca mag ña la fekk na sëñ tubaa mhm. te nee na ma sama sëriñ bopp bi ma koy booba tubaa ab la dañoo dox ba tolloo ak déddug daaru salaam bi seng bi ñu def siñ siñ gaawaan maam Cheikh Anta mhm. booba seng bu yes la ñu ko fay soog a denc mhm. seng bi di leer leri mhm. mu ne ma xanaa dañoo toll daaru salaam nee na ko waaw mu ne ma kaame ne leen lëf siñ du waxoon Cheikh Ibra Fall ndeysaan ñett li ko lii yàlla ber boo demee ci njabootu sëriñ bi fañ ko teg niñ ko fonke nañ ko bëggee nga xam ni Cheikh Ibra yàlla ber na ko Cheikh Ibra yàlla ber na ko xam naa <laughs> ñu teg foofu loxo mm-hmm. daal di dem nak ci ñi nga xamante ni dogal na mm-hmm. saa su ne ñuy ànd ak ñoom jotaay bi mm-hmm. euh, di waa promobile euh, di ñoo xam ne nag dogal na ñu ñoom ñoo bokk génn kilifa waaye nag euh, maanaam seen réseau jàppandi gi ci am moom wax dëgg yàlla wartu ump kenn ndax tamit semaine bu ne ñu def promotion waaye nag li ci gën a neexati mooy dañoo indi benn crédit boo xamante nii tey du doon carte wala yeneen la ci aju ñu koy wooyee mbég mi nga xam ne boutique boo dem am na fa waaye nag am na ci ñoo xam ne it àgg nañ sax ci mën a télécharger application bi maanaam di ko télécharger ci Play Store ak di ko télécharger ci Apple Store mu mel ni yooyu bàyyi ko xel ci Promobil, mën wéccé ko ci wave ak orange money ak manam xétu transfert d'argent yépp mën nañ ci jënd crédit promobile mu yagg lool toofeexe lool kon soxna mam jaar ndjay ñu ngi lay char bax bax ak ñi nga and ak ñëpp ci marketing ak communication bi waye char bu baax nag eh, ndeysaan waa promobile ndaysan ben waye char bu bax seigne abou billahi maam di ñaan suñu borom defal leen jam ñom ñi nga xam dañoo nekk ci marketing bi waye ba tay tamit seigne abdou fatah ndaysan communication promobil ñoo ngi koy char bax bax ah di wax nag ne eh, maanaam eh, Serigne Sidi Fall Zikrullah eh, yàlla dafa dogal mu bokk ci njaboot gi ba noppi bokk ci ñuy defar liggéey bi yàlla dogal na la le 18 décembre bi ñu jëm mu war cee def bés boo xam ne ñu ngi koy defee théâtre Daniel Sorano mu mel ne nag jàppandal nañ ci képp koo xam ne jënd nga billet maanaam la lay yóbbu ak la lay indi day ajoowaat ci billet bi kon ñu ñaan ñu àgg ci ak jàmm te suñu borom defal ko tawféex ah mu mel nag xam naa. Euh, Baye Serigne Mbacke waxtaan wi am na solo te jànge nañ ci te yëngalaat na suñuy pas-pas waaye tey fii nga waxtaanee ana lan la ci murit bi war a jàngee ba mu doon source de développement pour réew mi walla yokk goo xamante ni nii réew mi moom dina ko yokk ci taxawaayu doxinu Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin sëñ Basiru woo góor loolu rek la murit war a xañtu bu ñu lay bu ñuy jàng bu ñuy wax murit Cheikh Ibrahima nu mu mën a def ba jariñu rek la ci war a jànge mhm. ndax moom ko war waroy jariñ mhm. loolu rek la ci murit war a jànge mhm. xam nga ci jariñu ci réew mi ak njariñul réew mi ak mu mu mu mu développé. Mmh. ci wàllu liggéey. Mmh. moom jàngale na ko bu yàgg. Cheikh mmh. ana lum ko jàngalee. waaw. mooy ba dara amagul. nga xam ni dara xewagul ci réew mi. dajale dara amagul. moom ci la bari le di jënd ay suuf. di defar ay bitik. yegg na sax jël mbooloo moo xam ne da leen di wax barab sàngam ngeen di dem. bu fa nangam dee wàcc ginnaaw kuñ wàcc ku wàccee ñu fay la mhm. dee leen fa dem di wàccee ñu leen di fay at bii jooj ma dajale ko jox ko sëñ Bamba muy xeeti dokeer daal muy xeeti yenn sax Cheikh mhm. mhm. Ibra deful na ko lu ci génn indi leen ma jox sëñ Bamba ngir ngir wax la développé réew lu muy doxee te moom mu dox ci bu yàgg dafa am benn solution bu mu bu mu mës a tëral benn xalaat moom Cheikh Ibra Fall bi Cheikh Moussa Al Karim di yóbbu raay bi Touba waaw te tubaab bi woo ko. yàlla du ko yàlla fayal. amiin Cheikh Moussa yàlla nañu ko yàlla fayal. amiin waay billaay mooy yoon kenn rek la. Mhm. tubaab bi dafa wax Cheikh Mouhamadou Moussa ko dinaa la may autorisation nga yóbbu raay bi. Mhm. waaye li ma ci war a teg ci ci ci loo war a def pour bi mën a dem. Mhm. moo may jaaxal loolu nit ku ñuul waru ko man maanaam ci wàllu xaalis. financement. waaye ci wàllu mbooloo mi ko war a gas. waaye ci wàllu saytu gi ñuy saytu seen yaram ak li ñu war a lekk. juróom-ñaar téeméeri góor xam ngeen ni ñoo gasaraay bi njaareem ak Touba. juróom-ñaar téeméeri góor juróom-ñaar mhm. ca baax ga ak wutu gam wutu Serigne tubaa te dara manqué wul. Mhm. mu woo mag ñu baax ñi ñu ànd nag sëñ tubaa ñëpp ku ne la mu ne la bi liggéeyu sëñ Touba bi mu santaane ci jumaa ji. Mhm. laa bëgg tàmbali tubaab bi nee na oto mënu koo yenu saxaara ko koy yenu te Touba ak njaareem amul raay nee na kon faaw ñu defar raay ba noppi loolu pexe tubaab bi la woon ngir gàllankoor liggéeyub sëñ tubaab bi rek. jàpp ne nit ku ñu mënu ko. mag ñëpp wax seen xalaat. Cheikh Moussa nangu Cheikh Ibrahima Fall ñëw. ko man day Cheikh Moussa mu ne ko waaw mu ne ko digal naa la loo xam ne Mbàkke digalul njaam la akub sangam. mu ne ko waaw mu ne ko boo demee ci tubaab bi lu mu la sant neel waaw. Mhm. kon Cheikh Ibrahima xam na pexe tubaab tubaab bi ñëw si suñ Modou ne ko junni góor ak juróomi téeméer ñooy liggéey liggéey bi dañuy am kàttan toll ci seenu ndaw am doole mu ne waaw mu ne ko dañ leen di xool ba xam amuñu génn wéré dem mu ne waaw mu ne ko ñu vacciné leen ñàkk leen mu ne ko waaw mu ne ko ñuy bu kii li bu lim bi liggéeyee ba wàcc bi liggéey mu ne ko waaw mu ne ko ba noppi dañuy lekk ndawal bis mu ne te booba iya, yooyu iya. jamono jamonoy bekkoor ya, bekkoor jamono ji tar mu mhm. ne ko dañuy lekk ndawal bis bu ne Cheikh Moussa ne ko waaw mhm. mu ne ko ba noppi nag da nga leen di fay weeru dee ku nekk da nga koy fay ñetti téeméer te booba ñaar dërëm kenn mënu ko am bu fàtte ne cheikh ahmadou bamba xaadimu Rasoul bind na ab kaamil jox ko borom daaru moxti rakkam mhm. ne ko jaayal ma ko ñetti dërëm borom daaru wër réew mépp kenn amul ñetti dërëm mu andi ko dëgg la de loolu amoon na léegi junni góor ku ne ñu war laa fay ñetti dërëm ñetti mhm. pour Cheikh Ibrahima ak développement mhm. Cheikh Moussa nangu loolu ak tubaab bi ne ko nangu naa mhm. ñëw Cheikh Ibrahima wàññi juróom ñaari téeméeri góor ci biir këram jox Cheikh Moussa ne ko tàmbalee oh junni góor boo ci génnee juróom ñaari téeméeri góor daamel mel lim baa ngay dem ñu ngi dem de am ñu génne téeméer am ñu génne juróom-ñaar fukk am ñu génne am ñu génne ba juróom-ñaar téeméer yi mat ci yoonu murid mu des problème mu financement Cheikh Ibrahima dajale junni ak juróom junneeg juróomi téeméer yooyu bañ leen dajale ba mat ci yoonu murid Cheikh Ibrahima dajale leen ne leen suñ moom sa ndigalul suñ Bàmba lay jëfe bu doon dañ leen di jaay jënde ko ab raay dañ leen di jaay ba noppi jënde ko raay kon liggéeyal ko du fi ñu ne waaw mu ne mm-hmm. man maa leen di fay benn yoon laa leen di fay mm-hmm. Cheikh Ibra mm-hmm. loolu xam nga lu doy waar man maa leen di fay benn yoon laa leen di fay ñu ni teg mu ne yéen ñëpp dinaa wañ ñetti téeméer ci seeni tur jox ko Cheikh Moustapha Mbacké Cheikh Moustapha Mbacké bu tubaab bi ñëwee dinaa mu jox ko ko yéen ñiy liggéey liggéey bi bu weer deetee ngeen taxaw ci tubaab bi mu tàllal mu fay leen bu ngoon jotee ngeen raam jox ko Cheikh Moustapha addee mu denc leen ko ba weer dee <laughs> kon Cheikh Ibrahima ak développement ku ñu fay bu ngoonee mu ñëw vert dara am jox seen saabu denc rek lay lay benn solaire uh-huh. la Cheikh Ibrahima fay junniy góor ak juróomi téeméer raay bi dem Touba ndeysaan raay bi dem Touba ndeysaan keroog bi raay bi yegsee uh-huh. saate uh-huh. tombeeg bisub bisub bi bisub bisub talaata jooju muy talaatam ji di lay daam Fall moo nekk li fekk na ma fa man Serigne Modou Mbenda di dawal nee na mu ngi sol garaam bu nga nee na cheikh bu ne jak bu sew lol gis ma sori oh nee na mouride ni sol ay dal yi fermeture ay ay ay santiag yi fermeture billahi nee na ne cëpp ca wata mbott ba seigne modou mbend di ko dawal mhm. nee na mu dal ni dom ñu ni faal mhm. mu ne ndax di ngeen meuna sédé ni liggéel seigne bàmb bi ñewon na ci ci ñu ne ko waaw faal ñewon nga mu ne dom ndax ni la touba tubaa féete mhm. dal di joxoñ ñu ne ko waaw Fall nii la féete de mu ne man de doom léegi ma mat góor ci am mag mu taqali ko sagoom ci àll mm-hmm. daal di xaaju ne ko nga mat góor ba defar ay góor ñuy defare mm-hmm. Fall mat nga góor bu yàgg mm-hmm. mu ne doom déglu ma bu baax léegi ma mat góor nii la tubaa féete ñu ne waaw mu ne benn yoon laa cay dem daal naa ah, doom sëñ Bamba bu masaana ci kaw suuf daay boof sëñ Bamba mas ta taxaw ma taxaw mas ta toog ma toog ni moom ah sëñ Bamba bu fekkee ni meetar meetar nañ ci suuf am fu ñu ko teg jàpp ne moo fa ne te moo ne fépp mhm. ah man du dem di tiim foofee ñu ko teg mhm. ah doom benn yoon laay dem Touba mhm. daal ni doom xam ngeen lu tax ma ma ne seede ngeen ni ñëw na ñu ne déedéet Fall mu ne liggéey bi ku ci yebal sa soxna bu bu ñëwee mat la boroom kër sa boroom kër ku ci yebal sa jaam bu ñëwee mat la sang mat la sang ku ci yebal sa doom bu ñëwee mat la bàyyi mat la bàyyi koo ci yebal daraja jang ko yi féete woon ba yebal ko bu ñëwee mooy féete dara jooju sañ na laa yebal bilaay sañ na laa yebal daañu doom xam ngeen ni ñëw naa ñu ne ñëw naa mu ne xàmmee leen ma cee ñu ne ko xàmmee nañ ne kay faal bu ne xam ngeen li tax xàmmee leen ma ñu ne ko déedéet faal mm-hmm. mu ne damaa bëgg fu gën a méttee mm-hmm. ngeen ne ma yow a ma ni mën alxuraan junni yow ma la wax yu manqué benn mhm. yàlla danaan bu ma leen jàppee mhm. bis sàngam bis ba bis ba bis ba rek mhm. Cheikh Ibrahima nee na foofee mu mettee ku dul Rasulullah sallallahu alayhi doo wax yàlla sa xeet bi da naan yàlla dimbali ma ci sama bopp naa mucc téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam bis ba da ngay taxaw daal ni yàlla dimbali ma mën naa mucc doo tal kenn Rasulullah rek moo naan yàlla ummati sama xeet wi seex Ibra nee na bis booba la muy tartar nee leen ma yowa ma ne man a mhm. Cheikh Ibra nee na bis ba la muy tartar ah, nee leen ma yowa ma ne yowa eh, xam naa li jëwriñ développé ndax mañaan ñaan mi ngi ñuy def si xam naa li jëwriñ développé yaa doon ciy indi sa contribution rek bu ko defee ñu laaj ko benn laaj mu tàgguwaale ko ñu yëkkati jotaay bi waaw indi na kii yu bëree bëri mhm. ci wàllu liggéey bi loolu ci wàllu sàkket yi mhm. xam nga fi ñu nii la war a mu mu ñëw ni gars yi tëpp leen sàkket bi am na ci boo xam ne am naar la woon moom xaw ma ne xaw ma benn bii na am déet waaye na ci boo ne am naaru gànnaar ànd ak ji dé si na ko yaa seex yaa seex yaa seex maa salakum fii saxara loolu nag maanaam ñerem safara ca daaj ni leen fa yóbbu am na ci boo xam ne loolu la woon waaye nag lu mën a xew léegi xam nga suñ tubaab gis na leen dem julli ji ci li ba ndox rombaal leen te waxu leen dara kon ki ma àndal la bañ mu dem safara ndax kooku moom fi ñu moom pour moom ñi buñ julliwul gën tax xam sëñ Tuubaa gën ko ragal yàlla waaw kon moom mi xalaat ñàkk julli gi dafa mel ne comme buñ julliwul moom problème lay doon ci moom kon ngir sëñ Tuubaa dimbali ko moom waaw ngir sëñ Tuubaa dimbali ko waaye gën ta ragal sëñ Tuubaa yàlla gën koo xam yàlla te sëñ ba xaw mën na leen dem romb leen dellusiwaat ni ci yàlla kon ki ki cooxe ñàkk julli gi kon kooku mel na ni lépp moom la moom la ci sëñ bi bëgg a soxe waaw loo nga ci dégg waaye julli julli gi moom ku ne xam na ni sëñ Tuubaa moo gën a ragal yi moo gën a xam ñëpp yàlla waaw waaw kon man nga ni bu ni waaja doon teel sëñ bi danaan teel waaw waaw bu doon teel sëñ bi danaan teel kon moom moo di nga ci xolam moom la sëñ Tuubaa dimbali li gën a gàtt euh, ci li nga wax ci wàllu kii safara muy kër safara bi liggéey ci sëñ Tuubaa ca bu mu fa jógee euh, kontaan lool bisu talaata bi noonu la demee noonu la demee talaata ñëw ci Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Tuubaa ne ko dañ maa gaafal looy wax ñu la tey la talaata kenn du ma def ci man dara sëñ Tuubaa ne rafaat naa la Ibra oh. soo gis émission bu tudd talaata moo koy door a sos looloo looloo ko waral sëñ Tuubaa woo Cheikh Fall buntu bi rafaat naa la talaata ba mu ko rafaatalee talaata ji at moom wax ne Cheikh Ibra Fall jublu ay penku ay góor penku ab lim bu baree bari jàppatuma nag lim ba ngir lugu ko kon bisu talaata bi kon lu ma moom si Cheikh Ibra Fall kon maanaam moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy bàjjagal moo tax ma du kenn kenn du moom benn ba mhm. sëñ Mourou Mbacke Diagne mhm. ma nga ca Touba mhm. mu laa dig bi nett ci sa waajur la ko nettalee dana bàyyi lay Fall Ndiaye nee na sëñ tamas naa génn ni dama ni roy leen ma wala ngeen roy Ibra Fall roy leen wala ngeen roy Ibra Fall daan waaye nag man roy ma ku dëggal ku fedd sa laxasaay ngi roy ma dana yoramaat sëñ Tuubaa de su mënu su ko roy gaa yi wax ne roy sëñ Tuubaa roy sëñ Tuubaa amut kenn mënu koo roy nag mu wax la ci benn bu ñëpp waroon man te kenn mënu ko mbubu mu amul poos ku ci roy sëñ Touba. kenn du doom du sët. kenn li waroon ko romb ci yor roy ko. mooy mbu mu yor poos. te doon koo ci problème kon koo gis moom am na poos fii poos fii poos yi tubéy. sëñ Mourou Mbacke Ndiaye moo ko sa daaw màgg dafa dafa dafa daaru. ba noppi loo ci def waaw mu moo moo arrangé. mu tële tic kon sëñ Touba dañuy def ay ndigalam. ndeysaan ndeysaan <laughs> uh-huh. waaye du ku ñuy roy. Uh-huh. ko kenn mënu koo roy. moo tax mu ni ku feddali sa laxasaay ngi roy ma itam dana yoramaat uh-huh. kon bu ñu doon mën a roy daal ñu roy ko yu mbub mu amul poos mm-hmm. amul nag kenn ko ragal yàlla ba roy sëñ Tuubaa mm-hmm. ci mbub moo xam ne amul poos moom moom moom ci njëkk ña ba ci ñu mujj kon ñu ñëpp lépp loolu xool mooy ci wàllu julli gii mm-hmm. sëñ Mourou ba ko fekk te ba sëñ Abdoulaye nekkee na ñuy julli benn waay julliwut xam naa mën a xëy na Baay Faal la jullee ba noppi xam nga gars yi moom fi ñu toll ñu bari bu leen Cheikh Ibra Fall dimbiliwul ndax la waxoon eh, suñ woon dafa waxoon safaan nga ni ko ku di nga Cheikh Ibra Fall sédd la ko bu ci bu ci ñëwul ci yow moo ma ci ñëwul ci yow bu moom Ibra Fall la waaw waaw ah, ku ko rek mhm. sédd naa la Ibra ku la di ku di nga Ibra Fall sédd naa ko safara safara waaw bu ca ñëwul kon Ibra Fall la ndeysaan waaw waaye ñu bañ see mhm. moom wala abal nañu pour pour dem foofu moom waaw léegi nag sëñ Mourou Mbacke Diagne mhm. Mhm. góor gi bàyyi dem ba nee na bi ñu jullee man am waa joo xam julliwul mhm. xanaa Baye Fall la am la ni ko gars yi de waxee ñu julle ñu naan duñ jul ay Baye Fall lañu waaw mais sëñ bi daal di génn ñaar téeméer wees peq kiitu ñaar téeméer jamono jam nekkee kàbb gay boobu doon ko xalifa yónnee ko gura bi gura gi dikkee mu jël gura gi jox ko waa joojee li ko tuubee naa ko dégg gi oh. la ilaha <laughs> waaw mun ko tuube naa di gi waa ji wax ni gars yi dañu bu ñu waxee ñu ne duñ julli ay Baay Faal lañu mm-hmm. mun ko tuube naa ko dégg gi waaw waaw kon kon doomi Sëñ Tuubaa gox doomi mm-hmm. <laughs> eh, xam naa nag eh, ndeysaan eh, monsieur et madame fajoor ndeysaan CBAO di suñu gestionnaire de compte di ku baax ku yaatal yàlla na suñu borom yokk seen jàmm waaye ba tey tamit comme ni ñu ko waxee woon sànq rek maanaam assurance bi nga xamante ni yàlla dogal na eh, maanaam eh, ñuy am taxawaayu eh, maanaam di ko ànd ak docteur Mouhamed Bachir Ba yàlla dogal nag ñi nga xam ne ñoo ñu fay bokk di taxaw di ay jàmbaar lool yoo xam ne ñoo bokk fa ñuy yëngoo ndeysaan ku ci mel ni sëñ Yuusu ñoo ngi koy char baax sëñ baam ñoo ñoom lay char sëñ Yacine sàll assurance ñoom lay char soxna Marème ak waa bureau ba yëpp madame Diop ak ñëpp ñoo ngi leen char di ñaan suñu borom defal leen tawféex ndax bu ñu mënee jot ci docteur Mouhamed Bachir maanaam ci ñoom la jaaree kon yàlla na yàlla yokk seen jàmm barke Seexul Xadiim xam naa euh, maanaam euh, euh, sëñ Mbàkke da ngay tàggoog mbokki taalibe yi mm-hmm. waaye dama bëgg rek nga lancer waale benn message mm-hmm. ci jamono fi mu toll mm-hmm. ana bàyyi Faal wala ndaw ñi fan lan lañ war a bàyyi xel ba mën a raw ci yii nga xam tey maanaam ñi dox jëgmal ci ñoom te mën leen a yàqal muy àddina bi ñuy ñaan Cheikh gën a dëgëral taxawaay bi. amiin nañu yàlla boole suñu Jamil yàlla gën laa dëgëral yow itam. ak ñun ci barki Cheikh lu lu lu am solo. Mhm. nga wax. Mhm. mooy wan doxiin mhm. la la Baye Fall war a dox. ba jariñu Cheikh Ibra daa wax ni. sama nag yi ndénkaan yi. ci gétti jàmbur yi. su ma ko rocci woon gétt yëpp raaf yëpp raaf mhm. lu mu bëgg a wax mhm. mooy ñi koy roy te koy niru niru lu bari na mhm. waaye ñi ko doon ñooñoom ñooñ la ñuy waxal sëñ Basiiru nit dina doon jullit xaqan te du doon murit ndeysaan waaw waaw nit dina doon jullit xaqan Don murit mhm. te du don Baye Fall mhm. jullit murit Baye Fall mhm. mooy grade bi gëna kawé moy bi gëna kawé dé bala nga don Baye Fall da ngay doon jullit xàqan don murit ba yegg ci saadix soko don doon alali Cheikh Ibrahima képp ndeysaan te man nga don julit te do don murit waw man nga don murit te do don Baye Fall waaye Baye da ngay bolé ñaar yee ak Baye muy ñett da ngay doon jullit pire. doon murit saadeex mhm. soog a gëm Cheikh Ibra Fall bokk ci mhm. moom. Mhm. nooy mel su boobaa. mooy lépp luñ ne acam buñ la ci seen. dëgg la. lépp lu ñëwoo góor yaa ko moom. xam naa waxtu wi sax jot na. waaw foofu la ñuy wàccee suñu kàddu di tàggoo tey sant. ndax daa am ñoo xam ni. faaw noo sant leen. di leen ndokkeel. di ñaan sëriñ bi gën leen a dimbali ñoom itam. daa am ñu baax ñu ñu taxawul. soxna yaa xam Mbodj moom sëriñ Modou Mbodj. moom Cheikh Ibrahima Fall. nekk Bambey. sunu xuj faal mhm. moom sëriñ Modou laay mhm. moom it nekk Bambey waaye sëriñ Cheikhouna Ndiaye moom Cheikh Ndofal Ndiaye du suñ kilifa dëgg la nga xam ni jataay bii ci ndigalam mhm. ak ndigalu sëriñ Fallum si war aminta ak njaboot gi rek lañ sukkandiku def waaye nuy nuyu docteur Balla Diack docteur Balla Diack du ma toog fenn te nuyu ma lu tax du ko nuyu mooy moom wirdu salaatul fatiha la yor yàlla nga cee faj aajoom digganteem ak kilifaam mu ciy jaamu yàlla di ci am lépp waaye fun waxtaanee Cheikh la noonu. Mhm. da ngay gis ni moom def na ko ci kële di ko teewlu. ndeysaan ndeysaan kon kooka Cheikh Ibra Fall ñor na ko. ñor na ko ñorin woowu nag moo tax fun toog sant ko. ndeysaan man na ko de nu ngi koy nu ngi koy gërëm bu baax. Mhm. nu ngi gërëm rajo ya nekk ci Bambey. Mhm. nga xam ni rajo yooyee mhm. ñaari rajo yee ci département bi yëpp mhm. bii alxames bii àjjuma mhm. da ngay gis ni ñun ñoo fay waxtaane Cheikh Ibrahima Fall di ca ànd bi muy Bambey FM ki nga xam ne soxna Ayda Mbuuj moo ko moom soxna Ayda Mbuuj moomu it ñu ngi koy gërëm ngërëmul boppam ndax sëñ Touba rek a tax ñu koy gërëm ndax daa sonn ci ñun ngir sëñ Touba ndax defar keur bam yam nga joxe caabi ya te seigne touba tax mm. lolou seigne touba rek tax te defal nañ ko kon ñu ngi koy ñu ngi ñaan seigne touba dimbali ko mm-hmm. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu bax itam mm-hmm. wa benen radio bi muy gox BFM mm-hmm. nga xamni euh, momit seigne it keur Babacar Diouf moo ko yilif waxtu wu nek day yakam bu ñu gisul àjjuma sax dañuy wo fu ngeen nek ñu ngi koy gërëm ñu koy sant ñu ngi nuyu sun way juriya ñu ngi nuyu mbooleem njabotu Cheikh Rufal gep nak fu nuy deg ak fu nuy deglo rek mbooleem julit ñep ñu ngi tuup ci wax ji bu dëngee ñu ngi sant yalla ci wax ji bu jubé lepp def nañ ko àddee Cheikh lépp jub na lépp jërëjëf ndeysaan waaye jëmit jërëjëf ndeysaan sëñ Oussa jërëjëf bi Adama sëñ Adama jërëjëf ndeysaan santaan nan bu baax di gërëm ñu ngi leen di sant ndeysaan ñoo di siyaar nag sunu rakk bopp soxna Rama waaye di siyaar baax borom këram Malick ak ñu nekk Bamba ñëpp ñoo ngi leen di siar Bah Bah. sëñ Adama loy taggo ci lu gaaw rek ndax dafa melni ni ñoom ñu yeglu ne waxtu yi jot na jërëjëf sëñ Bass xanaa ñu tàggoo rek mhm. di remercier d'abord abord téléspectateur émission bi Taata Cheikh Ibra mhm. di euh, remercier aussi tous les euh, notre les internautes mhm. yi nga xam ñu suivre ci suñuy différents comptes réseaux sociaux yi mm-hmm. à part loolu ñuy mm-hmm. fàttali rek mm-hmm. café gi moom euh, émission bi promobile moo ko suukar di woo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllum société wala di liggéey ci wàllum kafe ñu leen tàllal loxo rek pour ñëw ci sukkaru kafe gi di gërëm ñëpp di gërëm sama waa kër di sant aussi sama kilifa di sëñ Sidi Mbacke bu Daaru Salaam moom si Anta di gërëm ñëpp di jox rendez téléspectateurs ak internautes yi. Mhm. Euh, talaata jii di ñëw ci yéen invité. Mhm. macha allah di jox euh, internautes yi ak téléspectateurs yëpp talaata jii di ñëw ci beneen jotaay euh, Baye Jamil looy tàggoog mbokk taal bi. waaw moom na xam ne jërë ngeen jëf rek man daal parce que am na ci loo xam naa ko euh, sant daal sëriñ bi mm-hmm. Mm-hmm. ndax mbir moom mm-hmm. na nga ko na nga ko ko xam te li mu moom xam na ko te itam mën na ko te itam jekk na ko te naa ne li ma gën a wax sax maanaam euh, kaar bi kii yu euh, kon maa ngi may gis na ci dëkk bi ay xale yoo xam ne xam naa bàyyi faal gi sax li ñu tuddoo waaye ni ñuy solo dafa ñàng jol nga xam mbaxana mi nga sa mbaxana moo xëy du mbaxana bàyyi waaye du ko ba say nopp jàll sol caaya joo xam ne du mel ne suñu caaya yi waaye di caaya ju kenn xamul ñëw ba ca ba ba ca waq ya mm-hmm. sëñ bi boo xoolee nga xam ne yow wax dëgg yàlla boo leen di mel ni mm-hmm. ab simbakat waaw loolu lay niróol loolu nag mat ca ku leen seen da nga naa xam nga mbo ni ba ca nopp ya mm-hmm. mbu mi caaya ji nga xam ne caaya dafa ñëw ba ci kii te du caaya sax njaxas lii waaye coleen nga daal wax dëgg yàlla boo xoolee ba ci ñaar ànd wala ñett day bu ñu neex a xool waaw te Baye Fall dañ ko war a ko war a xemmem maa ngi jig sëñ Modou Amy Defal sama sëriñ mm-hmm. suñu mm-hmm. mm-hmm. sëriñ nee na yoon wi lu mënul addiya bokk ci te jëf ju ñaaw ko wax ju ñaaw mënu kon nañ rafetal jërëjëf kon daal ngi sant ñëpp di ñëpp rek képp ku seetaan daal nuyu nañ la siyaar ne ni ñu la ñaal toog fa ci la gi Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf macha allah di jégalu bu baax sëñ Mañaan ñoo ngi lay jégalu bu baax euh, euh, sëñ Moustapha euh, looy tàggoo mbokk taalibe waaye boo tàggoo ba noppi nag da ngay yëkkati dara bu ko defee ñu tëjee ko jotaay bi waaw kay jërëjëf jërëjëf sëñ Basiru ñu ngi ziyaare bu baax sunu sëriñ sëriñ Baara ibnu sëriñ Sohaybu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ziyaare bu baax soxna Maam Xari Mbàkke bindu Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk fee ca bu baax di doo dalee ci monsieur le maire Alioune Ndoye nekk jëmm joo xamante ni maanaam jàppale ci xas day ñu koy ziyaare bu baax te ziyaare suñu waajur bàyyi suñu bàyyi Mamadou Diop suñu xarit gi soxna Adama Seck ñu ngi leen di ziyaare baax jégalaat baax di ziare mboolem waa jotaay bi di leen jaajëfal naa suñu bopp dafa leen tawfiq ak ngërëmu Sëriñ Tuubaa foofu la ñu yemale kàddu yi naa rek ñu yëkkatee si kadar ko ci waaw waaw ndeysaan laa ilaaha illa laa bakk na la faal si xibra faal yoway daan mooy sa biigi kumba faal buur bu day sereen dimbal lan lay ñaan sara faal am nga ko dooley biir faal ak bitee امين امين امين امين امين امين امين امين